maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew di nuyu waa Petit Thialy di nuyu aussi suñu mbokk Petit Thialy yëpp militant ak militante Petit Thialy yëpp waaw tey ñun ñi nga xam ne ñooy investi Petit Thialy yi ñoo ñëw di waxtaan ak suñu ay militant di leen wax ni li ci vote bi di len ñaax comme niñ ko tamé di def bañu commencer ba légui je pense que duggu nañ ci kër yépp wala li ci desit bariwul donc comme niñu ñuy waxtaan ak ñom ci kër yi rek ñom la ñuy dikkaat di waxtaan ak ñom fi di len wax ni le 23 soreetul donc lepp lu way di mëna def rek nañu voter Benno Bokk yaakar Benno Bokk Yaakaar bi nag comme niñ leen ko di waxee rek mooy waa réew mi ak waa APR mooy Benno Bokk Yaakaar mooy APR ak réew mi donc seeni doom seeni xarit seeni papa seeni yaay ñoo nekk ci liste ku voteel commune noor voteel nga monsieur Toumane Diallo votel nga madam Aïta Gueye votel nga xalifa Diop votel nga Fatima gaajo votel nga sëy na bu ndaw madame fay ak ñeneen list bi dafa xaw a gudd donc votel nga tamit man mii di Ndey tin ñu may wax Marie leen tin donc le 23 nañu teel a yeewu dem jël bulletin bu marron beige bi am bopp fas bi Nous votons trois fois premier bi commune deuxième bi ville troisième bi conseil départemental donc je ngi ñaax di le monde, petit yep nak bayu bàyyiwuma nous di wo suñu kilifa yi muy kilifa nous muy imam yi chef de quartier muy euh, kilifa diiné kilifa yu Nous yi nek petit chali yep, muy jeune muy jigéen muy catholique muy musulman muy séeréer muy tukulóor muy pël muy joolaa ku mu mënti doon woo nañ la nga teel a ñëw voté si votel ñu nag njëriñ rek la comme niñ ko tàmmee di wax mooy ñu fal suñu maire Lamine Diallo ñu falaat ko mu liggéeyaat Petit Thialy ndax am na lu mu fi dugal dañoo bëgg nag mu dolli ñu te pour mu dolli ñu nag il faut mu ànd ak pouvoir te ànd nañu ak pouvoir donc day gën a neex li ñu amoon day gën a bari day gën a baax day gën a neex te ñu nak nag ñi nga xamante ni dañuy wër di wax di yàq xelu nit ñi naan bu ñu voteelee am na ko am ne neen bu ñu ko voteelee doon maire mënta nekk maire bu ñu ko voteelee tamit du maire zone nord ngi ubbi leen seen xel yi ak seen ngeen déglu bu baax li leen di wax voteel fu seen njëriñ nekk te seen njëriñ mooy Benno Bokk muy réew mi ak APR. asalaamaaleykum waa centre vote Petit Thialy ñoo ngi euh, nuyu gox den fàttali li waaye doon jaay léegi mu lamb le le vingt trois janvier léegi mu egsi te damaa bëgg yéen ñi presse lundi ci waxtu bi ngeen ñëwaat fii pour ñuy feete ci ñi cent pour cent donc cent pour cent li ñu war a am xam nu ko comme li ko le maire Lamine Diallo doon wax moom dafa nekkoon maire mburu te mburu en général boo koy lekk bis bu nekk boo moytul bu yàggee da ngay seere léegi nag soow mi ñëw na léegi mburu ak soow defe naa mooy boo ànd ak état nga nekk maire réalisation yoo bugg a def di nga ko def surtout fii à Petit parce que maire am lu mu fi jotoon def loolu weddi gis bokk ci bu njëkk ba réew mi rek moo doon dem ah, de côté en solo ah waa Benno dem yàlla def réew mi moo doon gañe fu ñu toll di fekk ñu nag euh, benn léegi nekk nañu benn defe naa ah, daañu am une large victoire large victoire boobu nag ñëpp ñoo ci jàpp aujourd'hui am ñoo xam ne ñu ni ñuy voté mi ngi mel ni ñetti yoon la ñu war a voté war nañu xam ku dem ci urne ba ou bien ku dem ci sa bureau de vote ba bu yóbboo na nga jël bulletin bu chocolat bi chocolat moom ñëpp xam ndax bis bu nekk am ñoo xam ne moom bu ñu xëyee moom la ñuy ndékkee bulletin bu chocolat bi ngay jël bu am bopp fas bu jaune bi moom ngay jël ñetti yoon bu la neexee nag booy voté boo ko jëlee boo duggee ci classe bi boo jëlee bi dangay jël ñeent mun nga fekk fukk fukki bulletin ak ñeent mais bul ko jël jëlal bi nga teg si ñeent bii nga jël nga teg ko ci kaw nga jël enveloppe dem ci nga bañ gàcc ma nga sànni fa ñeent yooyu jël bi dugal ko ci enveloppe ñëw dugal ko ci urne urne boobu daañu ci bind commune Thiès noor nga defaat la même chose jëlaat bii ak yeneen ñeent demaat yóbbu enveloppe demaat ci mbañ ci mu ñëwaat dugal ko foo xam ni moom mooy biñ bind urne ville nga jëlaat bii jëlaat yeneen ñeent ak enveloppe nga demaat ñëw dugal ko ci conseil départemental bu ñuy defee loolu defe naa njuumte du am am na xam ne aujourd'hui ñu ngi jël bulletin ñu def ci couleur orange xam orange moom mag ñi dañuy defee ne ah, ba léegi réew mi la orange amutul léegi xewitul li xew mooy bi, bi bu yoboo na ngeen ko jël ngeen bañ koo fàtte ngeen xool bu baax kenn bañ leen distraire ngeen xam ne victoire bi doon am dañ koy war a doubler multiplier ko kii ñii dañ leen di war a dugal ci saaku yóbbu leen sànni leen géej ndax ci mbalin ma lañu kii ah, moom la ñuy ñoo ngi gërëm di sant ñëpp te defe naa bu ñu fi jógee tey jii gin ngeen ñu sax may euh, may kii euh, may tonis pour ñu dem porte à porte yi ñu doon def xam naa dañ koy multiplier ba au soir euh, di bii di ñëw nga xam ne léegi bu dañuy toog xaar jël suñu carte électeur mooy suñu arme ñëpp denc ko waxtu ba jot ngeen dem suba teel ndax vote bi day gudd xam bu nekkee nit ki ñetti yoon lay voté day jël temps bu leen nee damay bàyyi bu ngoon parce que 18 heures gars yi mun nañu tëj yi. six heures du matin na leen fekk ngeen rang ngeen ñëw dóor mu daanu ngeen jël seen victoire ngeen dem seen yoon bon ñoo ngi gërëm di sant ñëpp jërëjëf salam. voilà donc euh, asalaamaaleykum suñu mbokk euh, waa presse yi asalaamaaleykum wa Petit Thialy euh, fi may àddoon nag mom daanaka defe naa ne loolu la ñëpp di ñaan muy jàmm nañu fexe ba élection yi ni ko kilifa diine waxe ak kilifa aada yi nañu def jàmm ci élection yi bu soirée du 23 au 23 le soir ku yàlla jox ndam sa morom mi gañe feete ki gañewul mu xam ne noonu la demee mu accepté ko je crois que Sénégal jàmm moo fi xej ndax ñun ñëpp benn la benn kër mën nga fa dugg fekk fa ñaar ñi bokk ndey ak baay te bokkuñu parti te politique dafay jeex relation yi continuer en tout cas man je lance un appel au pouvoir et même à l'opposition que ñu ñu xam c'est des élections de fi bien vrai que l'élection c'est autre chose parce que dafa changer suffrage direct la mais nañu bàyyi xel ci jàmm ji parce que dès que bu amul jàmm dara du fi mën a taxaw même bu fekkee sampoo jàmm tamit soo gañee doo doo liggéey ci jàmm te bu boobaa les pays en li ñuy wër li pays limitrophes gis ngeen la fa xew te Sénégal ñaanu mu donc ñu ngi ñu ngi lancer encore un appel ci loolu ci sax bi may remercier tous les responsables qui tournent autour de Petit chali en l'occurrence euh, les têtes comme euh, le président Toumani Diallo la présidente euh, Ndeye Mme madame Tavares mais surtout aussi il faut pas oublier que la coalition c'est la coalition Ben Bokk Il y a Idrissa Seck y a l'APR mais y a d'autres y a d'autres coalitions d'autres partis qui sont à l'intérieur je pour ne pas le nommer Raymond Tin, c'est la tête de liste proportionnelle. Raymond Faye, du c'est la tête de liste proportionnelle de Reste les Verts, de vous rejoindre euh, le groupe. Donc, c'est un soutien de taille. Et, Fumay Danel, encore une fois, je ma vous ma que ligue bingen moudje gis mobilisation, lolo, vous ko ligué sur le terrain. Les, responsables sont débrouillés, fait. Et puis, ce gana am solo, plus gana et c'est important que tu sois investi ak il y' a un état d'esprit exceptionnel à Petit tout le monde connaît que da cee donc vraiment c'est à saluer et Inch'Allah, comme nous nous donnons des parce que seul le Réunion partait gagnait à plus de 60 voire même 70 et cette fois-ci c'est le Réunion, c'est le premier et le deuxième qui sont ensemble ça veut dire que jour Bobu, il ki ci ñu dab mënul donc ce qui est sûr et certain on ne peut parce que le travail continue mais l'air ba l'air mooy on est très serein et on sait que suñu candidat candidat de valeur le candidat boo xam ne am nañ yaakaar ci moom allah au soir du 23 incha allah victoire bi dañ ko fêter la plus belle des manières Vous boobaa ngeen ñëw fi ñu comme le dit le président Toumani jërëjëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Petit Thialy maa ngi leen di nuyu di leen ziar di baalu ñëpp ak di baalu ak ñëpp di ñaan yàlla boole ñu jéggal waaw man <coughs> li ma ciy wax du bari sax damay sensibiliser rek que ne le 23 au soir incha allahu rabbi nañ def ko dañ ko daan defee rek gañe dem ñibbi te incha allah am ndax comme ni ko Mass rek le premier le deuxième et le troisième ñoo ñoo booloo nekk benn kon amul amuñ beneen adversaire ci biti donc les 100 pour cent day day dellu si sensibiliser ñuy sensibiliser waa koñ bi que ne vote bi trois fois la ñuy voté comme ni ko ñëpp waxee rek ñu def ko trois fois euh, fexé nak ba xamé bulletin bi ndax légui nekatul bulletin bu orange marron beige la bulletin baangi ni ci sama wette am bop fas bi ci kaw donc euh, madame Tawarez wax na ko du ma ci parce que lim na investi yep li li ci dess rek moy lolu euh, jéem bok ñun ñep liggéey fal suñu maire Lamine Diallo wax na ko réalisation yaangi fi donc bu andé ak état réalisation yi day gëna baax. Les lu pour dire pour revendication ko bind nga euh, au soir du 23 à partir du 24 inshallah, rabbi say revendication dinañ ko dinañ ci dinañ ci xel te def soxla ci Petit Charlie, inshallah, dina am ci de voilà merci beaucoup Bonsoir. ngeen alaikum, bonsoir alaikum Charlie. Petit alaikum, beaucoup Grand Assalamu alaikum, beaucoup Abattoir bon maintenant je m'adresse particulièrement aux jeunes nous, ont une tonton Toumani une leader politique une newoon fii au niveau de Petit Thialy passe nañ un message Nous avons passé à toute la population de Petit Thialy rawatina Grand Tchali, ak à Abattoir Nous avons xam ne daal yaa ngi voter ce centre Petit Nous, avons jeunes jeune Petit Thialy dañoo war marqué une empreinte ci développement

pour réalisation Petit Thialy il faut ngeen nous nous. ba au soir du 23 janvier bu ñu avons ba gagné boba on aura notre mot à dire parce que si nous avons les mairie pour réaliser yu bëgg nek Petit Thialy day metti sur ce ñu ngi leen di ñaan yeen jeunes yi génn vote bi pas dé compliqué parce que trois votes là nga gis ben kenn koo xam bu duggee si urne bi bu duggee si euh, bureau de vote bi dina xaw dina xaw a yàgg lu mu dee dee dina fa jël benn 3 minutes te bureau de vote bi day tëj à 18h mu leen di ñaan jeunes yi bu ñu mënee yeewu 6h du matin voire même 7h au plus tard ñu mën a ñëw rang def que ñu marqué suñu empreinte si euh, centre de vote Petit Thialy comme ça nañu jéem ngeen jàppale ñu ñu mën a réaliser suñu vœu.

Euh, man la Ndeye sama jàkkaarloo ak euh, presse bi tey jii di leen di jàllale benn message bi nga xamante ne macha allah lu jëm ci suñu euh, vote bi nga xamante ne jour J moins 6. di leen di xamal ne population bi nekk kenn ku ci nekk fu mu toll ni jóg jot na ginnaaw dee fépp fu waay dencoon sa carte d'identité rek na la jege ndax jamono ju ñu toll nii xel day gaaw a fattu dañoo bëgg a def comme lu ñu daan def. ndax ku nekk ci ginnaaw tumaan yi sa dara wara koo yox-yoxi sama mbokk yi jóg leen jóg leen ñu waajal jàkkaarloo bi nga xamante ne ku ñu xam-xam ne ci loolu lañuy yëngu xamuñu lu dul victoire lii may victoire gi nag lii la gëm suñu bopp teel a waajal suñu bopp euh, te fas yéen a teel a def li ñuy def mën a teel a yegg ci centre de vote yi te bañee ne nañu xaar ba ci kanam dafa xat dafa kii il faut ñu ànd ak courage surtout courage ak patience ba mën a voter ndax tey jii dañoo war a am victoire boo xamante ne macha allah comme ni ma ko waxee woon keroog ci meeting bi rek victoire la ñu gëm dóor la ñu xam sans recul góorgóorlu leen. di nuyu de passage suñu mama yi nga xamante ne macha allah madame Seynabou Ndaw l'infatigable ay taggay macha allah Ndeye Khady Soumaré rek Mati Diop di nuyu ñëpp. Euh, jeunesse bi bàyyi ñu kenn aujourd'hui tey ji ma Gadio waroon na fee teew mais je parle à sa place dinen machallah di xaar ñëpp ci bisba le soir du 23 euh, janvier 2022 euh, bëgg une victoire éclatante ñu déllu waat fété waat ko fi inshallah jaajeufal na leen assalamu alaykum wa centre de vote Petit ali, ñu ngi leen nuyu ku ci nek sa tur ak sa euh di rafetlu population centre de vote Petit ali. d'habitude que nit ñi xamuñu lan moko composer nit ñi dañuy japp ni Petit Thialy rek dafa ndaw. du doon Petit Charlie, rek Petit Charlie dafa un euh, prolongement ba Grand Charlie parce que si nous coordonnateur le Rewmis Grand Charlie la jugé aussi un prolongement de Calaw ñaari guuy am na euh, extension aussi ci Petit Thialy la donc Petit Charlie même donc on peut dire que Petit le euh, centre de vote bi day regroupé quatre entités là. donc su ko defee ñu ngi nuyu ñi ñi ñi ci entité yëpp di leen wax nu jéema euh, fagaru euh, comme niñ ko daan defee ñun ak ñoom ñoo dëkk seeni doom ay investi lañ fi am di leen wax ni bu ngeen votelee investi yi mooy votel ngeen Toumani Diallo mi nga xam ne ni Petit Thialy ku nekk xam na li mu fiy def ba Grand Thialy peut-être sax on dirait luñ ko fi wax rek la Dantumaani ku baax la ku yaru dimbali nit ñi la fa nekkee bo démé au niveau de la coalition berno boko yaakar ku ci melni sen seen coordonnatrice coordonna euh, la suñu coordonnatrice euh, Ndeye Tine moom kenn waxaalewul ay mbiram mom en général euh, côté am aussi mom mu ngi koy gérer comme il le faut ñu dem sinu benen secteur bi euh maire ayta Gueye investi le ñu dem aussi euh, Mère euh, Seynabou Seynabou Ndaw dit madame Faye aussi investi le aussi nous au niveau des jeunes ku ci ni investi ça veut dire que nous buñ leen ça veut dire que Petit Charlie sera représenté le centre de vote et aussi nous avons euh, aussi sans oublier euh, Dien aussi c'est un investi et Raymond Faye et aussi sans euh, sans oublier les autres yi nga les leaders comme nous, avons ci liste yi am des leaders yu fi nekk ku ci Manga M. Manga c'est au niveau euh, de Petit Charlie, aussi Thialy ci qui fii yëpp moom Nous avons ratissé ñu dem Alex au niveau des jeunes de Petit Charlie. Aimé Boguissé, c'est mon président ASC Petit Charlie. Alex aussi mon monnaie au niveau de la commission sportive au niveau de Petit Charlie. Nous aussi donc euh, da ngay gis ni ñun euh, aussi ñu dem ba côté Vieux Diop donc da ngay gis ni dal fi Petit investir aussi ñom ño nekk ci côté population donc wun fenen quoi luñ leen yenen nit yo xamanteni fenen lañ ni leen ngeen Petit donc dal lima am luma wax bu ñi ci euh, surtout avec euh, l'entrisme de Rewmi au niveau de la coalition Benno Bok Yakar, possibilité yi dina y a ay soxlo yu bari yu wara au niveau de Petit dina gëna yomb avec ñun suñu collaboration yi am avec les ministres et tout ça bu ngeen jappalé parti boobu dinañ ci am bu bari di ni aussi euh, retirer carte mën dem ñi dem sous préfecture carte d'identité yi et aussi euh, réew xam leen ni <laughs> bulletin bi bi la orange bi la euh, bulletin bu marron bi comme niko grand Toumane waxe chocolat ak euh, bop fas bi gars yi euh, nan xam tay orange amatul bi mo am wasalaam. asalaamaaleykum waa Wa maa ngi len di nuyu yéen ñep maa ngi leen di nuyu ah di len ziar nak di kontaan ci li li moom machallah li lii moom li lii Toumane wax rek da nuy gëna dolel dooleel ngeen nuy gën wax bi moom jarul ñu di si delluwaat di delluwaat si sensibilisation bi waaye dañu koy waxaat rek waxaat bi rek mooy sensibiliser nit ñi ba mën a mën nit ñi mën a mën a teel a génn teel a génn nag gisal nu sunu euh, sunu bi sunu bulletin bi nga xam ne moom la ñu soxla pour ku ñuy voteel na nga ko jël voteel na ko amul leneen loo xam ne li rek ñu ngi ko ci euh, liyal di wax ñu ñëw bëgg rek ñëpp jàpp ci ñëpp jàpp ci responsable yi nag surtout sunu responsable yi ñun waxuñu sax ñi nga xam ne dañ leen élu mais responsable yi ñoo gën a dox dox bi ñoo ko gën a wax ñoom ñu ngi leen di gën a gën a gën a encouragé ñoom it ndax ñoom lépp ñoo ko wax ñoo ko def kon ñu ngi woo ñëpp di wax ñëpp nañu teel a génn pour ñu mën a voter merci. asalaamaaleykum mbooloo mi mun naa ne wax ji yëpp tënk nañ ko wax ji lu fi jaar yëpp am na fulla am na fayda am na maanaa mais maanaa bi nga xam ne moo gën a am doole mooy carte yi carte yi na génn. ku si nekk na nga teel a dem marché balaa jour vote bi parce que sa carte sa carte mooy sa arme su bëggee jàppal Toumani Diallo bu jàppal bu ko jàppal Ndeye Tine da ngay teel a génn parce que yëf yi ñoo ko bokk ñun ñi neen la te gox bi yaatu na tuutiwul carte d'identité bi moo ma ñor ku ne sa carte nañ ko génne vote bi yombul yombul de dafa la yombul ñett trois fois ngay voté ñi nga xam ne carrément jànguñu xam ne lu ñuy bindee A bulletin baa ngi nii bu chocolat bii la. boo duggee dillal ñett yoon ngay voté ñetti yoon yooyu ne bu ko xeeb buy tiit buy ragal parce que su boobu mooy suñu arme mooy suñu mooy suñu àll boo xam ne dañoo war a gañe àll bi la gaynde buy xeex waru dellu ginnaaw daa war a xuus ba am lu mu bëgg jour boobu dañuy ñaan yàlla na képp koo xam ne yàgg ngaa jonkor yàgg ngaa xeex yàgg ngaa préparé lii le 23 na nga teel a génn 6 heures du matin yeewu leen avant 6 heures yeen yeew ngeen aj lal yi jaamu jug jàpp julli jubal directement fi nga xam ne mooy mooy chaise Petit Thialy fa la ñuy voté loolu laay ñaan ñëpp yal nañu yàlla defal jàmm ñu fekk jàmm salaam yàlla musañ ci xuloo al xeex al musiba ak bala al lamiñ bu bon lamiñ bu baax yal nañu jik yal nañu xëy rek lu ñu yaakaar yàlla mottali ko ci jour vote bi alhamdulilah rabbi